bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wakafa wasalaamun ala ibadihi alladina istafa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk yi di almuhibuuna lil ngi ñëw di dajawaat ak yéen ci sunu jotaay bii nuy faral di séq ay bis ñuy waxtaane tombub sunna ñu fas yéene waxtaane mooy lan ak wàccuwaay bi mu am ci lislaam ak li nu war sunu digganteek moom eh, ak it li ñu seetlu ci jamono muy ñenn ñooñ xëy na taxawaay ba war ci sunna duñ ko ca taxawe nu tàmbale kon ci leeral lan mooy sunna dafa am yaari baat yooyu dañ leen di faral di jëfandikoo te seen maanaa di menn muy sunna ak xadiis sunna ak xadis ak yeneen baat sax waaye bu dee ci wolof moom kon euh, sunna am na beneen baat bu mu bokkal maanaata mooy kon sunna ak xadis ñoo bokk lu ñuy firi am na yeneen baat sax waaye nag bu dee ci wolof moom yaari baat yooyu doy nañ sunna ak xadis lu ci li ñuy firi rek mooy lu ñu askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon wax juñ ne moo ko wax walla jëf juñ ne moo ko jëf walla ñu wax ne am na lu ñu def mu yëg ko te waxu ca dara yett yooyu mooy sun na si nga xam ne jullit bu ne da caa war a tënku am na maanaam mu gën a yaatu nag euh, moo xam ne la cee dolliku moom kum neex mu tënku ca kum neex mu bañ caa tënku waaye li nga xam ne jullit bu ne da caa war a tënku moom mooy yetti wàll yooyu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo wax wala mu def ko walla ñu def ko mu yëg ko te waxu ci dara loolu la ñu tudde sunna di ko tudde xadiis itam loolu nag dafa am wàccuwaay bu kawee ci lislaam ndax ku ne xam na ne lislaam alquraanul karim mooy cëslaay li ci njëkk lépp lu ñuy saxal ci lislaam ci alquran la ñuy sukkandiku la ñuy njëkk sukkandiku ngir saxal ko lépp lu ñuy dàq itam di ko ñàkk saxal ci turu lislaam it ci alquranul karim la njëkk sukkandiku ngir mën koo dàq mën koo saxal comme cëslaay li njëkk islaayu lislaam bi njëkk mooy alquranul karim alquran nag moom wax yàlla la kon moo feete kaw lu dul moom ci wax yi ndax diine wax wax la diine ay wax la ci ay wax lañ koy jële ja ca jiitu nag mooy alquranul karim ja ca topp nag mooy sunna sunna mii muy waxtaane wala kum neex mu ne xadiis kon bu alquranul karim jàlle sunna te mooy xadiis mooy cëslaay lu ci topp ci cëslaay yi ñuy jëlee lislaam loolu kon tey wane wàccuwaay bu kawe euh, bu mu am bu alquran jàllee rek sunna moo ci topp kon lu dul alquranul karim sunna moo ko feete kaw alquran nag feete kaw lépp lépp lu ñuy saxal ci lislaam bo amut fu ñu mën a sukkandiku ci alquranul karim te am fu ñu mën a sukkandiku ci sunna dañuy sukkandiku ci sunna moo xam lu ñu lay doon moo xam lu ñu dàq lay doon loolu lañ wax nekkoon kon sunna mooy ñaareelu cëslaay ci lislaam ginnaaw alquraanul karim loolu mooy wàccuwaay bi mu am moom sunna te mooy xadis itam nu teg ci nag taxawaay bi am taxawaay bu dee taxawaay bi sunna am moom li ci ëpp solo mooy leeral alquranul karim ndax alquran dina ko xame lu bari lu muy indi ci àtte du ko tas teqantal ko faram fàcc ko bam sës lu bari ci lu muy indi ci àtte du ca doxe noona lu ci bari li ñuy wax lëm day lëm day tënk day tënk bu ñu joxoon misaal ci julli rek julli yi juróom fi mu ne ngir xam ne juróomi julli ñooy farata rek loolu du du dee su ko fekk ci alquran karim alquran duñ ci fekk lu lu leer lu nuy wax ne julli yi farata ci bis bu ne juróom la benn ñaareel ba yit julli ci juroomi julli dinaa waxunu waxunu ne juroom na kon doon waxe tam waxtu julli sangam wax sangam les koy def alquran leralut lolu julli gunen nuñ koy defé tam alquran leralut lolu julli tusbaar ñeenti ràkka la nii yek nii yek lañ koy julle alquran leralut lolu julli takusan jullit timis jullit gee jullit suba alquran leeralool julli yooyu yi bu ci ne wan waxtu lañ koy def ak nan lañ koy defee loolu lépp alquran leeralu ko waaye sunna moo ko leeral moo leeral loolu lépp moonu xamal ne julli yi doon farata ci bis bu ne juróom la moonu xamal tam julli gu ci nekk waxtoom ak nuñ koy defe jëloon leneen tam noonu lay demee rek ñëwoon ci ponki lislaam yi rek ponk yi ponki lislaam yi rek buñ ko jëloon ponk bu ci nekk alquran bu ko faram fàcce te ko bam sës waaye day e, tënk bu ñëwee ci lu mel ne koor koor alquran wax na ne weeru koor lay doon wax na fi mu tàmbalee ak fi muy yem mooy ne bëccëg bi lay doon waaye daanaka weesuwut weesuwut foofu li ci des eh, li koy yàq lépp ak ku ko yàq kooram te tey ko la koy war ak yooyu yëpp sunna moo koy leeral waaye alxuraan leeralu ko deme ci asaka noonu momit it faram fàcce yi yenn alal yi nan lay toll asaka door caawar am bay nan lay toll asaka door caawar alquran leralu ko ci asaka waré itam la ngay genn nu ngi toll alquran leralu ko moo xam am bay la mo xam ak jur la mo xam khalis la lu ci nek alquran waxut li nit di am asaka door ko war waxut itam bu ko asaka waaye la ci génne nu muy toll yooyu yëpp sunna moo ko leeral aj ji moom moo ci rawat aj moom daanaka lañ ci wax daa gàtt bu xasee wax ne farata la rek ak diir bi nit ki aj waru caa def lu lu mu war def waru caa wax lu mu war wax rek bu génnee loolu daanaka waxaatu ci leneen li ci sunna moo ko leeral kañ lay doon rek sax daa wax alxuraan daa wax rek ne daa am ci ay weer yuñ koy def dafa am ay weer yuñ koy defe waaye weer weer yooyu yan la sax alxuraan waxu ko sunna moo ko wax moo wax tam ni ñuy aje teqantal yëpp moo ko andi buñ toppee ci des yu ci bari tam noonu la demee wàllu li li dagan ak li araam alxuraan tënk yi la andi waaye faram fàcce sunna moo ko andi yooyu yëpp gis nañu kon ne alquran ni muy faral di doxe mooy day tënk waaye li muy tënk nag sunna moo koy moo koy leeral ni mu koy leerale ci ay wax lay doon yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam wala jëf jëfam day leeral alquran ni waxam di leerale alquran waa alquran diglee julli mu julli Namu julle dañu xamne kon non la alquran diglé kon namu julle moy mooy leeral julli gi alquran di diglé ta alquran mom leeral ko bopam lolou misal la rek ngir wane ne kon sunna liggéeyam bi ëpp ëpp solo moy leeral alquranul karim da misal yi ñu joxe rek xamé nañ ci ne bu sunna leeralu ton kon danaka duñ mëna jamm yalla ndax ay tënk la alquran andi waaye nag na muy amee sart yaag la ci aju ci defin yooyu naa ko andi bu ko sunna andiwutoon yeesul xam ni ñuy def yàlla diglee julli bu sunna ñëwutoon leeral julli yi kon du nu xam yéen julli la ñuy julli ak nan la ciy jullee naka noonu aj gi naka noonu asaka naka noonu woor naka noonu ci des yi araam yi dagan yooyu yëpp. jëflante gi ñu war a jëflante ak dëkkandoo jëflante bi nit war a jëflante ak ay way juróom jëflante bi war a dox diggante borom kër ak soxnaam jaay ak jënd la ca aju yooyu yëpp alxuraan day tënk waaye na nag moo koy moo koy tas moo koy leeral kon taxawaay boobu mooy taxawaay bu mag a mag a mag bi nga xam ne na am na ko ci alxuraanul karim te bu amutoon kon dee sut mën a jariñoo alxuraanul karim ndax ay tënk la rek yooyu du ñu xam ñu koy tinkee bu fekkoon ne sunna ñu wut leeral ko ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na koo tënk ci taxawaay bi sunna ginnaaw bi ñu xamee wàccuwaayam wàccuwaay bi mooy bu alquran jàllee mooy waaye taxawaayam nag mooy leeral alquranul karim ci di ëpp solo ci taxawaayam xam naa kon teg ci eh, sunu wargar nag kon ci sunna te mooy xadis bismillahi irrahmani irrahim sunu wargar ci sunna nag eh, daanaka ba nuy waxtaane alquranul karim daanu ca waxoon ci warugar moo na war ci sunna itam rek bokk na ci li ci war mom sunna to moy hadith mu sam ko ta ñongal ko sam ko ta ñongal ko wat ko yalla ci alquran mo wax ne mo gaddu mo fete wo sam ko ak ñongal ko waye sax ci deggine ni yalla wax ci alquran dañ ci deggene sunna itam ci biir sàmm googu lay dugg ci biir sàmm googu yàlla ne moo koy sàmm ndax fi mu koy waxee daf ne baatu zikr la wax ak zikr te zikr mën naa ëmb alquran ak sunna yëpp ndax ba muy wax ak yonente bi am na fu mu waxee moom ne ko dama wàcce ak zikr ci yow ngir nga leeralal nit ñi li wàcce ci ñoom kon day ba ne zikr jam wax foofa mën naa am du alquran day mën a sunna la kon bu ne itam maay sàmm ak zikr manes na cee dégg ne kon alquran ak sunna lépp la tayit moo yanu maanaa ginnaaw bu sunna amutoon duñ mën a dégg alquran kon ak sàmm alquran day lëkkaloog sàmm sunna ndax bu sàmmoon yaxub alquran bi mu nekk ci rek te sàmmut sunna kon yax bi de su ko mën a jariñoo te boobaa daanaka alquran njëriñam kon eh, du du du noona kon daanaka moom mu ñàkk am rek ñooyam ndax njëriñam mooy ñu xam ko jëfe ko te bu sunna sàmmuwutoon ba leeral ko duñ ko mën a xam duñ ko mën a jëfe kon sàmm ko alquran day lëkkaloog sàmm sunna ndax loola mooy tax ñu mën a jariñoo alquran waaye ni ñu waxoon sàmm ko rek sàmm gi yàllaa koy yàllaa ko warlu waaye nag da ko jaarale ci nit te naa ku gis jullit ñi li ñu daj ci alquranul ci sàmm ko daj ko ci sunna itam ci sàmm ko danga mën a xam ne loolu lu leen yàlla xiir la xiirtal leen ci eh, ngir jaarale ci li mu warlu mooy samu kon alquran karim ak sunna li wuute ci alquran ak sunna rek seen ak sam mo alquran mom lepp lepp lepp lepp lepp lañ sam ba dar yokku ci dara wañ ko ci daanaka sax dañu wax ne ba kenn jému ci sax lañu wax ba kenn jému ci yokku kenn musu ci jému yokku dara kenn musu ci jému dara kooku sàmm gi moom foofu la àgg bu dee sunna nag sàmm nañ ko ba dara sànkoo ci yàlla sàmm na ko ba dara sànkoo ci waaye nag eh, bàyyi na am am nit ñu ci daan jéem a yokk dara waaye bu bàyyee am ci jéem a yokk dara it noonu la sampe ñoo xam ne ña ca jéem a yokk luñ ca jéem a yokk ñoom ñu dindi ko muy borom xam-xam yi nga xam ne eh, ku xam li ñu daj ak taxawaay bi ñu am sàmm sunna da ngay xam ne xameesul feneen fu ñu ko mës a taxawee taxawaay bu toll noonu ñooñu yàlla moo leen samp ngir ña cee jéem a yokk lu ca bokkut luñ ci jéem a dugal rek ñu génne ko ca saasa wane ay nattuwaay ak seggukaay yu ñuy segge ba xam li ci wér xam li ci wérut kon sàmm gi itam ni mu ko def ci alxuraan la ko defee ci sunna Eh, xëy na bu alxuraan nag dafa gën a dëgër ndax moom daa àgg ci mayut nit ñi sax ñu koy jéem ñuy jéem a yokk ci alxuraan dara walla ñu ci wàññi dara bu na nag bàyyi na nit ñi jubadi ñu cay jéem waaye bu mu leen bàyyi ñu jéem itam samp na ñoo xam ne nag buñ ca jéem a yokk lu ca bokkul rek ñu daal di koy génne leeral la ca bokk ak la ca bokkul sàmm googu kon na mu daan amee bu njëkk noonu la war a wéyee ci sunu jamono itam di ko sàmm di ko euh, ñoŋal mooy di ko aar loolu ci bokk du ci dugg euh, di ko sàmm itam ba dara du ci manqué loolu sunu war a la nun jullit ñi euh, yàlla moo ko warlu waaye ci noonu lay mën a jaar wargar woowu kon lu nu war ci sunna te mooy xadis bu sàmm googu aar ji ak ñoŋal gi jàllee li ñu ci waraat mooy nag jëfe gi ñu koy xon ci alxuraan rek jëfe na mooy yooyu ñu wax bu yonente bi waxee bu waxee benn muy wax ji di di nettali nangam dana xew nangam am na nangam amut loola bu fekkee wax ji demee noonu la jëfe ga mooy nu gëm ko gëmi ko nam ko waxe lam nuy wax lu ak seegut nu gëmi ko nam ko waxe lam nuy wax lu weesu te nit ñi xamuñ koon tam nu gëmi ko nam ko waxe lépp lu mu wax rek loo xam ne li ñu mën a tudde nettali la nu gëm nu gëme ko nam ko wax loolu mooy jëfe gi bu fekkee ndigal la nag day digle nañ def leen nangam jëfe gi mooy def lam jigle bu dee tere jëfe ga mooy bañ a def lam tere kon yooyu ñoo am benn muy digle mbaa muy tere mbaa muy xamle <coughs> lu mu xamle moom mooy dañ koy gëm jàppe ko nam ko waxe lu mu digle nu def ko lu mu tere nu bàyyi ko moo xam ci waxam la moo xam ci jëfam la lu ñu def mu yëg ko te waxu ca dara it mu xam ne kon lu ñu sañ la mu xam ne euh, lu ñu sañ la lu mu digle nu xam ne lu war la ñu def ko lu mu tere nu xam ne jaaduwut mu bañ koo def lees def mu yëg ko te waxu ci dara nu xam ne kon lu ñu sañ def la yooyu mën naa dugg ci jëfe sunna te mooy xadis la ca des toxoon ak ci alxuraan tam nag mooy jottali ko jottali ko jotli ko ñi ci des bañ jot ko yonent bi dafa waxoon ne euh, li ngeen di jëlee ci man dee leen ko jotali ba mu tuut tuut ba mu tuut tuut doonte day jenn laaya sax dee ko jotali kon jotali warugar la ndax diina ji yàlla da ko wàcc nit nit ñëpp kon ku njëkk a jotali war na koo jotali ñi ci des te diina ji mooy alquran ak sunna ñoo ci jiitu xam naa kon ñu teg ci nag yenn taxawaay yi nga xam ne amut solo te am ñu koy taxaw ci sunna te jamono yàgg yi ba nekk ñu tënk ci dara xëy na leen ci li li naa ko ber sax nan ko ber ci biir bi nga muy taxawaay suñu mag ci boppam ndax li doon wax rek mooy war lu nu ci war nun jullit ñi rawatina nun murid yi kon eh, bab bii ñëw mu jagleel ko taxaway bi ci sëñ bi am ba tax mo di war ci am sen taxaway bop bu ràññiku bismillaahi rahmaani rahiim bi suñu mag eh, bi am ci sunna euh mag bi am ci alquran rek ben bi rek la ndax yar yoy non ñuy alquran jitu sunna top ci di leral leeral moy tax ba ñom ñaar rek lañuy mëna fu nit teg alxuraan itam day teg sunna rek mu sës ca da koy teg fa sës foofu sëñ bi lim ci wax moom bari na lool lool lool manis daan sax léppam moom la ndax ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sunna mooy sunna ndax ci moom la sunnay jóge te moom liggéeyal ko moo nekkoon mbiram kon manes naa wax ni léppam sunna la waaye manes naa tudd yenn bayit rek lu mat ñeenti bayit yoo xam ne buñ ko tuddee rek dana leeral taxawaay bi mu am ci sunna baytu njëkk bi da ci wone ne liggéeyam mooy leeral sunna liggéeyam mooy leeral sunna waxe na ko ay waxiin yooyu baat yu xaw wóotale waaye maanaa yi ak jubtu gi e, yenn jublu la léeg-léeg mu wax leeral sunna léeg-léeg mu ne dundal sunna léeg-léeg mu ne yeesal diine yu mel noonu léeg-léeg mu ne yeesal sunna yooyu yëpp ay waxin la yu muy wax bokk na ci ci muy wax ne lim fas yéene mooy leeral leeral sunna ci muqaddamatul am daax nadaafatuhu kulli min allaghwi taharat yonent bi lay wax ne ak ak sellam ak sellam moo moo laabal sama lépp moo ko laabal ci lu amut njariñ daal wax nañ ne wa sunnatahu inchaa rabbi ubayinu nadaafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatahu inchaa rabbi ubayinu sunnaam nag moom yonent bi salaa moom laa fas yéene leeral bu soobee sama boroom kon liggéeyam mooy leeral sunna loolu kon day wone kon yitte jum ko jox liggéeyam bépp mu jàppe ko leeral sunna mu waxaat feneen xasida gañ tënkee lii lii allahu foog na alquran muhammad muhammad lii lii allahu jibril alquran muhammad muhammad xasida googee ca njëlbeen ga lay wax ne lil mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu gis nga mu waxaat yéene ji mu yéene ci yeesal sunna yeesal sunna feneen dana wax dundal sunna lépp mel na maanaam rek la mu ne kon eh, fas naa yéene yeesal sunnaam su leer soosee feneen fu muy waxee ne man lima ma bàyyi ñu koy doon ne ci man li ma bàyyi ñu koy doon ne ci man mooy liggéeyal alquranul karim ak euh, xadis ak xam-xam loolu mooy sama ndono lu ñuy doon ne ci man waaye duñ doon ne ci man خالص بخدمة الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروث بخدمة الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروث feneen it muy لما فانك لما فانك fonk القران اك xadis ak xam-xam waaye du li ma du dajale xaalis ak i am am ak alal waaye alquran ak sunna ak xam-xam mooy li ma fonk di ko xënte woo kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab kon yent ti ji rek bu nu ko tuddee dana xam ne képp kuy tuddoo sëñ bu mag bi kawa ayam ci sunna da wara a ràññiku yi nu waxoon ci kawne ne nu war nun jullit ni ci sunna ko ko tuddoo sëñ bu mag bi da caa wara raw ci moga, ga ak ñoŋal ga te jëfe ga ak ca jottali ga ndax bi da cee amoon taxawaay boppam bu ràññeeku kon képp ku wét doo itam war naa am taxawaay bu ràññeeku nu ñëw na kon ci mujjee eh, taxawaay bu amul solo bi ci ñenn ñi am nu mujjee waaw lii mujj nag kon mooy taxawaay bu ñàkk solo bi ci ñenn ñi am te mooy bañ koo jox wàccuwaay bi muy yeeyoo moom sunna te mooy xadis mooy am na ñooñ te lu yàgg la it te lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seentu woon la itam seentu woon ne dana ami dana dem ba jamono ñëw am ñu naan nanu yem ci alquran rek lu mu daganal nu daganal ko lu mu ko te bañ cee dugg ci ay sunna ci xadis yooyu ndax yooyu dafa bari problème yonent bi na ne jamono dana ñëw am ñuy wax loolu waaye ba mu ko waxee dane nañ xam ne day lu yàlla lu yonent lu yonent bi yàlla bi lu mu araamal moog lu yàlla araamal ñooyam mooy alquran ak xadis kenn du leen xàjjale ndax alquran waxi yàlla la xadis itam waxi yonent bi la ci ndigalul yàlla lu wax ju mu wax ci xalaatu boppam wala bëgg-bëgg boppam waaye wax wax la mbaa jëf wax ju muy wax la ci ndigalul yàlla mbaa jëf ju muy jëf ci ndigalul yàlla mbaa noppi gu muy noppi ci jëf ba tey ci ndigalul yàlla waaye li ñu xam ne luñ def mu yëg ko te wax ci dara nam ko waxe woon sax dane <clears throat> ñi koy def dañuy doon ñu ñu ni ko boroom xam-xam firee day doon ñoo xam ne daal ñu ñu ñu ñu ñemewut tàng la doon ñu ñemewut tàng dañ naan ñeme euh, ñeme tàng ñu bañ tàng la ñuy doon euh, ndax dane euh, bis dana ñëw di am ku tëdd ci ci ci canapém canapé baat bu canapé lañ koy firee tey ku tëdd ci canapém naan waaye bàyyil bàyyil bàyyi leen ay sunna ki xadis te ñem ci alquran rek lu mu daganal nu daganal ko lu ko araamal nu araamal ko yonent bi daal bis dana ñëw nit soonu ci kanapem di wax loolu waaye daal nañ xam ne lu yonent bi yàlla bi araamal mook lu yàlla araamal ñooyam kon loolu lu yàgg la du lu yees lu yàgg am la itam waaye saa bu ma saa am ñu koy woote boroom xam-xam yi dañ leen di semmal ci lu yomb ndax loolu nit mën na koo wax waaye mënu koo jëfe mu kenn ku naan la ci alxuraan rek rek rek rek rek lay sukkandiku bu ko defee du ko mën a dégg moo tax mag ña sax ku daan masaan wax lu mel dañu naan ñun tam kat alxuraan rek la ñuy sukkandiku waaye dañuy seet ku nu ko gën a xam noonu jële ko ci moom te bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sunna du leneen lu bokkut ak alxuraan waaye day leeral alxuraan alxuraan jooju nun tam moom lan bëgg ci lañ bëgg a sukkandiku waaye dañuy seet rek ku nu ko gën a dégg gën na koo xam ñu jëlee ko ci moom kon wax wax la jot eh, ku koy wax it mënu koo jëfe jabri bu ji yi nag dégg naa ay xale yu koy yu koy wax eh, di wax yu mel noonu daanaka di dàq li ëpp ci sunna wala lépp sax wala sax lépp rek nee na ñoom ci alxuraanu karim rek loolu moom wax ko mën naa yomb waaye jëfe ko nag daanaka mënta nekk te du dëgg itam du jaatu jaadu it alxuraan ko ci yam du ko mën a dégg waaye nag dañuy dem ci ku nu ko gën a dégg mu xamal nu ko te mooy yonent bi sallallahu alayhi te ci sunna lañu koy xamale sunna ci jëfam wala ci waxam am na it lii moom ci ñi tuddoo sëñ bi ci murit gi xam naa jëfi seytaane rek la moom ndax doo xam lu mu jotee ñoom am na ñoo xam ne fi mu ne eh, ñi sàmm sunna ñi gën a ràññee ko ci sàmm sunna te ñooy buxaari yi ak muslim ñaari ñoo ñu xam ne ñoo gën a ràññee ko ci sàmm sunna am na ñoo xam ne dañuy tuddoo sëñ bi te mel na ay noon lañ leen def xaw ma nag loolu fu mu jógee wax dëgg yàlla xaw ma ko jékki-jékki rek def buxaari yi am noon wala def muslim am noon daal xaw lan la te am na nag ñoo xam ne dañ leen yaba yaba yaba yëpp ba nga xam ne te xamuñ ne buxaar yi moom amut waxi boppam muslim amut waxi boppam ñoom wax yonent rek la ñuy jottali ak waaye ñoom waxuñ seen waxi bopp kon ku leen di yàpp day mel ne kañ ñu nettali yoo xam ak jëfam la yàpp ñoom amul lenn loo xam ne seen mbirum bopp la te nag ñoom ñaar borom xam-xam yi ñi tuddee ahlu sunna kii ahlu sunna te mooy ñu gën a bari ci borom xam-xam jullit ñi naka jekk ñooñ dañoo dëppoo ci ne seen seen yaari téere yooyu ñu dajale wax yonent bi ak i jëfam seen yaari yooyu ñoo gën a wér lu dul alquranul karim loolu borom xam-xam yi féete ci ahlu sunna ñoom loolu lañ jàpp te mooy ñu gën a bari ci borom xam-xam yi naka jekk ñu mel noon nag di leen yàpp ak mel na ku leen jàppe noonu daal man xawma fu mu jógee waaye xam naa yëf seytaane rek lay doon moom ndax ñoom sàmm sunna suyante bi rek moo nekkoon seen liggéey borom xam-xam yëpp nangul leen ni nañ ci loolu lu ràññiku la lu leen ñëpp nangul la borom xam-xam yëpp itam fonk leen ndax liggéey bu mag bi ñu def bi ñu def ci sàmm sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yii daal yu jara la moom xëy na nit nag bu xamut daa war a noppi waaye day am xam ba noppi te duñ noppi loolu nag ku koy def yàq rek lay def moo ngi jégalu ñépp nag eh, li ma bëggoon rek mooy ñëpp xam ne sunna wàccuwaay boobu yi la am alxuraanu karim bu jàllee moo ci topp gis nga waxoon na sëj bu mag bi foog naa ba ñu toll ci alxuraan waxoon na ne sëñ bu mag bi nee nee na yonent bi nee na ko nee na ko sa mbind lu dul alxuraan ak xadis sa mbind moo ko gënal yàlla moo ma ko gënal man ñi itam sa mbind la yàlla gën a bëgg man ñi moom laa gën a bëgg ci lu dul alquran ak xadis waaye nag dañuy jàll ba noppi ñoom alquran day jàll xadis jàll bu jàllee nag sa mbind mooy li gënal yàlla gënal man ñi loolu kon ku nekk war na koo xam taw jàppe ko noonu te bañ nag di topp sa xeer ak sa ñàkk xam eh, bay mën a àgg ci yenn ak di wax yenn ak di jëfe yenn maa ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu